yakunda tema kuduramba yenno mbesene jandai tema kuduramba biwo biwo biwo biwo mbe jakunda tema duramba yenno mbe tasamasa tema kuduramba bimbenna mansa kelma kuduramba bimbenna jatolema kuduramba bimbenna jatanjaima kuduramba Sulaiman lilalla lilalla ni yo dole binga anda lilalla ni ligeyu neila lilalla ni ye yu tai bo dilala ni what's up wan Pantela ni safantela nyun yo ya ju safwai ya fesi kholi fi yo ya iboro kana ki so diryanke i wolu nalla Hey, what a honey, it's been a girl's egg, and I'm nice. Too late, man, get your man, don't allow you die. Serigne Ndiaye set Alboury Ndiaye nañ boole xol yi Sénégal jëm kanam Souleymane ñëw na doom Alaaji Ndiaye doom Serigne Ndiaye set Alboury Ndiaye Souleymane Ndiaye set Alboury Ndiaye sam Ndiaye mooy sama waru tiit waru ragal Souleymane Ndiaye set Alboury Ndiaye mooy yéen ñëpp ci syndicat bi kan mooy sumay ñaar ñu mën Ndiaye Souleymane Ndiaye nag mooy ki nga xam ne mooy jàppale jeunesse bi Souleymane Ndiaye mooy ki ngeen xam ci ay de ci poor yi ba ñu jeunesse bi liggéey kan mooy Souleymane Ndiaye mooy surtout Alboury Diop Penda Diémé Ali Seydou a mënee naan ma bëgg teel kon ñoo ngi woon ñëpp ci concert bu mag boobu xam ni Baba Mbengue moo koy joué kañ lay doon samedi kon lay amee syndicat hey Souleymane Ndiaye président a ci sam yaa mooy sa maam walu ti waru raga man sa diwle muy ti wali diwle muy ti waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax di kontaan ci yéen ñëpp di kontaan tamit ci caravan bi trop affaire bi moo wax dëgg yàlla rafet na trop ñu ngi béggee suñu grand Pape Mbaye bu baax a baax di nuyu tamit suñu président di Souleymane Ndiaye moom la ñu fas yéene jàppale moom la ñu fas yéene jàppale ci li ñu jublu nii incha allahu rabbi caravane bi nag waajal le 26 la incha allahu rabbi le ci syndicat lay amee bu soobee yàlla pour jàppale président Souleymane Ndiaye moom tamit lenn rek moo ko ñor mooy jàppale ay jeunes yi mu mu defal jeunes yi li ñu bëgg loolu rek moo ko intéressé moom ñu ngi kontaan nag ci waa ginnaaw raay ñëpp. di len wax yeen ñëpp ngeen ñew téwé ko ñew japp ci bës bi seen dom mo ayé ginaaw raay la yeen ñëpp affaire bi. président SDD yoonu naataange. yow poste bi nga yor ma ngi Sall moo la fal. ana xamo li nga am ni bur yalla mo la tan directeur infrastructure ay aéroportière. ingénieur bi nga don ni sa xam-xam mo la ko may. ya fi ñeka am parti politique bisi kaza masa balanta takunda, kime manso kini nye ban seri masa jasi saja si sele budon pungo ben bole kholi senegal jen kanam nyaay suleiman ñew na dom alaji nyaay dom sege nyaay Assalamualaikum bole uh, uh, wa euh wa s2d yoonu natangue synergie pour un développement durable Euh, ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di nuyu le secretaire général Souleymane Ndiaye euh, di nuyu euh, Ousmane Ndiaye en particulier di nuyu Pape Dembalaye depuis Espagne di nuyu Pape Codé di nuyu Pape Mbaye mi ma féetee sama càmmoñ ak Serigne Diagne ak waa Jidda Caaroy Kaw tey nag Pape Mbaye dafa def carnaval bi ñu ñëw fekk si ma fii ci Jidda Caaroy Kaw moo nga xam ne fi dëkk Pikine Jidda 2 waa Pikine Jidda yëpp génn ànd ak Souleymane Ndiaye ñu war a dem stade le 26 ci kattanu yàlla incha allah war fa def benn meeting boo xamante ni benn lay doon. ci Sénégal. waaw waa Pikine nag ñëpp a ngi nii soxna yaa ngi nii taxaw. sama yaa ngi ne xale yaa ngi ñoom coroo nga ne lee ñoom faama. ñëpp a ngi suñu ginnaaw. dara du yomb lépp lañ bëgg bu jaar yoon. Souleymane. Vive SDD! Vive SDD! Vive Sulaiman Ndiaye! Vive SDD! Innum bisinajanda itima kuturanga Biwo biwo biwo Biwo mbeja kunda tema duramba Innum bita sama tema kuduramba Bimbenna mansa kelma kuduramba Bimbenna jadolema kuduramba Bimbenna jatanjayima kuduramba Sulaiman lilalla lilalla ni Wasar! ilayhi wasallam bu dee safante la ñun ñoo yaa waay yaa fees si xol yi fii yow yaay borom xanaa gisoo yi wóolu nañ la salaamaaleykum leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di nuyu waa pour un développement durable

fofu la inshallah allah ñu ngi wo mbolo mi ñep di ñaan ñep téwé ko vive la SDD Synergie pour un développement durable jërëjëf. biwombe jakunda tema duramba sa tema kuduramba mansa kuduramba jatolema duramba nimmen na jata njayima ko duramba sulaymane li lalla li lalla ni yo dole bi nga anda li lalla ni sen wati way di len joxo rendez-vous le 26 ak president Souleymane Ndiaye ah mom mi nga xamanteni dafa nek jeune pour dimbali jeune yi motax mu juk ñoo ngi di wo ci bis bu mag bi ñuy def muy le 26 fi nak ci Pikine and ak ci responsable yi nga xamanteni si ñu ñoo nek pour xéxal Souleymane Ndiaye fi ci Pikine waa ci parti bi nga xam ne mooy CDD euh, yoonu naataange ñoo ngi leen di jox rendez-vous ba le 26 incha allah. waaw salaamaaleykum yéen sama mbokki chauffeur yi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu Souleymane Ndiaye. maa ngi nuyu Pape maa ngi leen di sant di leen gërëm waa def nañ caravane gars yi génn nañ kontaan nañ waaw ñun li ñu yóbbante président rek mooy lenn ñun chauffeur yi ñun dañoo amul ku ñu jàppale te jàppale gi mooy chauffeur da nga koy jox oto lebal ko ko mu liggéey fay mais si li ñuy rayee dañuy jël oto yi di ko jox transporteurs yi transporteurs yi jël ko joxaat nu ko ñun ñooy génnewaat xaalis bi fayaat ko ba mu mat jox ko transporteur bi mu fay otoom soog a jël otoom yooyu lañ bëgg président jële ko fi Souleymane Ndiaye ñu ngi lay yóbbante loolu chauffeur yi dañu bëgg loolu leen di lebal nga lebal leen ko direct sans transporteur dex si diggante bi main en main ñun loolu lañu bëgg waaw ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi lay jàppale nag gauche ñu ngi lay jàppale droite waaw ñu it gestuñu waaw gestuñu soxla nañ loolu trop ñu jàppale jërëjëf asalaam asalaamaaleykum wa rahmatulah kii kii sunu rakk mais xamuñu ko ci ñàkk fayda bi muy bëre doon champion teewul day liggéey te defe naa ne président liggéey la bëgg kon su leen booleeg seen frère muy sëtu Alboury Birame Pende Ndiémé Ali Seynabou Cukkuli Njiglaan Njiglaan Sale Sale Njaajaal Njaar ñun dañ ciy kontaan ñun dañu bëgg nit ku am fit nit ku am rigueur parce que Pikine ku am fit ku am jom ku am ngor ñoom saa yi ñu xëyee 6 heures du matin ñu ngi ci syndicat bi 7 heures du matin ngi ci syndicat bi taxi yi ñoo dugal bagage yi ci kër yi ñooy dem fu ne ñooy jàppale ñëpp mais ku ñëw nuyu leen saafanteeg ñoom romb leen nax leen jot na nag pour ñu dugg ci aéroport yi ak port yi liggéey jot na pour ñu financer leen ñu mën a yor seeni i oto bopp yoo xam ne am na ñu bari jox nañ leen ay oto mais ña nga ca kër yi di nalaw yaa ngi de jot ñu am seeni oto bopp mën a jàppale seen njaboot kon nag yaakaar nañ leen ci ginnaaw yàlla te nii ngeen defee kenn musu koo def moo tax kon bu samdee di nga gis loo musul gis dina génn ciosan yeb dina genn pare nañ pour lepp ci kattanu yàlla. incha allah ok jërëjëf jërëjëf macha allah xanaa ah? waaw do diko rafetlu rek li nga wax ni c'est très important amna solo lol waaw di sante nak pap mom frère li nga wax la jom ak ful ak fayda gogou non maa ngi moom yàgg nañ mais lol mu ma wan motax ma am yakar ba xecc ko duggal ko ci parti te wax deug yalla dama koy remercier mais ruusloowu ma gàccelawu ma waaw macha allah daal di ko ñaan li nga bëgg pap yaa ko xam yàlla na ko yàlla moo tali ok jërëjëf waay jërëjëf merci beaucoup. lan jox Pape Momine Moussa Ndiaye kat. waaw maa leen di nuyu bu baax di leen ziar di rafet lu affaire yi parce que tamit euh, lu ñuy wax rek recherche bu gën a riche mooy doomu aadama bi sama gars yi fii dañu fee nekk nekk boo xam ne dafa rafet te tey gis nga ñëpp ñoom ñëpp ñoo lépp lu ñu jàpp rek dañ ko bàyyi ànd ak ñun ci liggéey bi kon tamit soo demee tamit nga jottali ko président nga xam ne ñii dañoo nekk si ginnaawam. pour mu gën ñu mën a jàppale parce que Pikine suñ Pikine la ñun ñëpp kii xam na lu may wax Jacques fi leen juddoo yaroo fi màggee fi donc ñun tey bu ma ñëwee xëcc président pour mu ñëw biir Pikine kooku du yomb du yomb ñun nag dinañ ci def lépp luñ mën ba nga xam ne bu soobee yàlla dara du manqué ñun nag ñu ngi lay ziar bu baax kontaan na parce que booba tamit tamit booba léegi tamit yow yaa ngi ci affaire bi xam nga guddeeg bëccëg yaa ngi may woo di ma nemmeeku ah di bëgg rëpp pour mu rafet kon lolu kontaan na ci trop trop parce que bayiwo ben yon ñu wé ci tool yi ñun lool rek lañ bëgg ku ñu jege du ñu assister waaw parce que kérok tamit gis nga social buñ fi amé tamit buñ la woyé rapidement da ci taxaw ñun nak amuñu lulu nit koku ku ñu bëgg nak ñoko bëgg kenn ku nekk am nga droit xol ku la neex nga and ak mom ñun Souleymane lañ andal kenn mënuñ ci téré and ak mom bur mu xam nga ko nonu kenn ku nekk am nga droit and ak ku la neex waaw comme niko gaay wax rek ginnaaw du topp kuy taxane ah, ñu jox nak président ki nga xam ne magam moo ko wóolu kan mooy président Souleymane Ndiaye ki nga xam ne moo jàppale jeunesse bi kan mooy président Souleymane Ndiaye ki nga xam ne nag ayda port bu fi jàkk moom la port bu fi jàkk moom la kan mooy président Souleymane Ndiaye ki nga xam ne nag moo bëgg a jàppale président Macky Sall ey booy tàccu leen waa taxe bagage yi maa ngi bëgg a jox maa ngi bëgg a jox frère am waaye bu samdee dina xam ne kuy tukki fasuy tukki la gën a xam dëkk bu bari ngooñ moo ngi doog a laal laalaake yi ñiy fat bagage yi ta noppi moo dul nettali fu ne mën nga faa dem ñuy net waaye sëfoor li muy fat ay bu ko waxoon tey nag ku mu fat doo fanaan biti président Souleymane Ndiaye ah Alboury samaam Birame Penda Ndiémé Ali Seynabou Cukkuli Njiglaan Njiglaan Sané ba buuna mareen naan samaama ba nub teen jaata xaaral ñu jox sa lakk ji lii nga def goro koy def sa mag yéen li la ngay nemmeeku ni ñu taxawee ak ni ñuy def ba samedi kon tàccu leen président waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax ku nekk ci turam ak santam waaw ah, man maa ngi tudd Ousmane Ndiaye nekk ci parti bii di SDD yoonu naataange nekk nekk directeur commission économique donc euh, ci parti bi manda kii boobu laa fa am ndaw ma tànk boobu laa ci am loolu nag moo ma indi tey ma ñëw tey vraiment pour euh, ñëw waxtaan ak yéen waa Pikine n'est-ce pas déplacement bi parce que yàlla def na ne Pikine euh, depuis quelque temps vraiment dugg nañ ci parti bi ñu ciy liggéey liggéey bu am solo ci liggéey boobu nag buñ ko tàmbalee ba léegi ñu gis si waa Pikine fulla fayda vraiment ñu woné né parti bi euh dessuñ ci ginnaw té bëgg nañ bok ci ñu ci ñëk ci parti bi ñu défa dëkk bi donc euh, lolu motax vraiment ñu and ak wa Pikine prévoir def manifestation bu ngand bu nga xamné war nañ ko fi amal fi inshallah. allah may la ak wa taxi bagage ak euh, wa Pikine Nord n'est-ce pas wa Pikine Est wa Pikine leader Thiaroye Kaw voilà donc euh, ak waa syndicat ñi nga xam ne fii lañu war a amalee vraiment manifestation bi ñu ciy gërëm nag bu baax mouvement chauffeur taxi bagage yi nga xam ne donc euh, da nga xam ne Pape yàlla boole ñu Pape Mbaye euh, Sow voilà wala boole ñu muy liggéey ci parti bi liggéey bu am solo ñu ngi témoigner vraiment ci euh, naataango mi yëpp di xam ne Pape mu ngi liggéey liggéey bu am solo bi nga xam ne incha allah bu ñu yàlla jàppale suñu yéene ci Sénégal suñu yéene ci Pikine ak jeunesse bi yëpp incha allah dinañ ci liggéey lu nga xam ne ku nekk dina ci gis sa bopp incha allah parce que suñu secrétaire général parti bi ku ko jiite muy Souleymane Ndiaye jeune la ah. comme ñun ñi ñëpp.

mu ngi ci dox bu baax te mu ngi leen ci mu ngi ci vraiment bàyyi xel waaw donc ñu ngi kontaan bu baax encore une fois di wax ne kontaan nañ kontaan nañ bu baax ci ngeen teeroon yi ñu doxantu la rek ñu wax ne na ñëpp waajal bés bi incha allah xam ne ne Pikine du ñu décevoir xam nañ ne événement bi incha allah dina doon euh, une vraie réussite incha allah samedi ñu ngi leen di jox rendez ci lieu bi pour euh, une grande euh, un grand meeting vraiment ci syndicat maa leen gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf